Parce qu'il faut, comme je dis, cher Ibrahima Fall. Est-ce que est-ce qu'il était qu'est-ce qu'il était avant avant muy nekk Mouride. il était waaw moom la ñu xam nga moom mooy mooy un peu si origine du cheikh. Mhm. c'est-à-dire que moom maanaam ci côté papam c'est un prince pratiquement mënoon na nekk Damel du Kayor. Mhm. côté yaa mënoon nekk Bourba Jolof. Mhm. comme ñoom famille Dethialaw Fall. la ñu bokk. pratiquement côté boobu yëpp. maanaam tous les les princes du Kayor laamaan yi foofu la ñu jëm foofu la ñu dëkk. Mhm. léegi moom comme ni mu la waxee rek ci début enfance am commencé ñoo xam ni kii dafa am ay prédisposition mhm. daana am na benn bis bu mu jàppoon daw ba jàpp ko ñëpp ñëw di ko ne ah lu xew mu ne xanaa déggu leen li kii di wax nee na ma bàyyi ko mu dem ter mu dem tete ay ay doomam. cest à que dem na ba xam ne am na ku muy seet. Mhm. ba ki nga xam ne mooy mooy mooy petit frère bi di sa Saliou Fall mas na ko benn guddi yow de ba ngay nelaw am na sa sëriñ bi ñëw na fi. Mm-hmm. mu ne ko ah bis bu bu ñëwetee fexeel ba dëpp tànk bi wut ab bool nga dëpp tànk bi ci bis boobu la xam ne am na moom ku muy wër a ji. Mm-hmm. c'est-à-dire que bon on peut pas l'expliquer mais moom li mu wax. Oh, li mu wax moom dafa nii. Mm-hmm. yàlla moo ko booleet Serigne Touba yàlla moo ne ko bàyyi lépp wuti sëriñ Touba. moo tax muy wër di wër di wër ba ci mutu mutu fa bomba ture la mujje bi mu fa demee liggéey liggéey fa euh, seen ku ñu wax euh, sëñ Matar Touré sëñ Adama Guèye mais na bi ma leen gisee seen comportement laa xam ne kii am na benn marabu bu mag boo xam ne ci lañ jóge ci leen laaj yéen fu ngeen jóge mu ne ko ah ñu nekk tur ju Ahmad Bamba mu leen kon ne bàyyi ma dem tàggoo ji topp leen mm-hmm. maanaam bi muy dugg ci kër maam maam borom Touba loo foofu nag la mbir ma xewe ndax nee na bi ñu li ñuy dox lépp à chaque pas que je faisais que je faisais pour aller vers mon maître mhm. nee na jinne yi maanaam ange yi ca aras ña ngay tëgg di fecc ndax xam ni les âmes seront sauvées mhm. ñoom ñoo ma jàngal naka laa war a tarbiyoo sëriñ bi mhm. moo tax ma ñëw jébbalu te jébbalu boobu mosu fa am ndax moom ca kër ga am na ñu mu fa fekkoon ay taalibe même ba mu ñëwee moom ba jubee sëriñ bi maanaam cërum yëpp wàcc ah, mu daal taamu raam jëm ci sëriñ bi sukk jébb sukk jébbalu te jébbalu bi mooy pacte d'allégeance bi pacte d'allégeance moo ne ko jox naa la sama bopp àdduna àllaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi moom nee na ab murid dëgg mooy koo xam ne da nga jël sa bopp jox ko sëriñ tubaa jël sa alal jox ko sëriñ tubaa jël say doom jox ko sëriñ maanaam murid dëgg doo am dara lépp sëriñ sëriñ bee ko